xam naa tey su ko Serigne Mar Senghor amoon dina ci kontaan loolu ba tax na damaa dal di jël kooku noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum. ante maam yaa ngi nice. waaw jërëjëf jërëjëf yow kan la. waaw tooga mi moom nga jàng ci tooga bi. waaw man moom jàngee naa si yu bëri. comme lan. nekkut a jéegi rek si jàng xale yi sax ñu ngi siy jàng. la dëgg la. tooga bi moom nice na tàng. ndigal la ndigal la alhamdulilah. ok jërëjëf di bëggee xale yëpp wax naa leen ne xale mooy dooni mag tey. dama bëgg a xale yi tamit ngeen bokka toog a bem baax waaye man saa yu dama am ak kontaante ci ñi nga xam ne ñooy toog di seetaan programme yi bakku bi ba na li ma leen def fala di wane bakku bi benn rek la yéen ci seen biir kër yi yéen da ngeen koo yëngal waaye ñun itam ñun ñu nekk fii ci Gambia Radio and Television dem benn too boo xam ne too bu ndaw laa nekka daal di dem nag seet tamit ñooñu naka la ñoo yëngoo ci seen biir biir kër yi xam naa ma fa eggee dinañ ma toogal li nga xam ne nii nag mooy bu nu ñekkee nga dal di dem fi nga xam ne nii nag mooy ci kiyanka yi ak badi bu yi ñu toogal ñu li nga xam ne mooy naa naa naa seen yi yooyu tamit dina am solo lool nga duggal nag biir kawur Saalum nag gars yi nag xam naa nag dal ñu ma nag cere yeeg mbuum yeeg yooyu noonu dina ma neex lool ndax xam ngeen ne jamono ji gerte yi ñor na gerte yi bàcca nañ seen gerte bi nga xam ne ni ku dem Saalum waxtu bi buñ la toogalee li nga xam ne nii mooy cere mbuum dina neex lool dal di fa jógee nag dal di dem ci fooñi bi xam naa nag ñoom dinañ ma dal di jox nag li nga xam ne nii nag mooy ekangule bi o oh, basare ngab bi yooyu dina ma neex lool ba tax na nag su may toog fii ne di wax rek yéen ñi nga xam ne yéen dinañoo seetaan yéen yéen añu ko jaral waaye ni ma dee faral di wax nag ñu ne wateef bi egsi na ci ndong li kii nag mooy nekk suma mujjeenteelu koo koola su ko defee nag ma dal di tàggoo diggaat leen daje rek ma dal di ko jël allo asalaamaaleykum allo ah, wàññin sa nga wàññin sa télévision bi hello allo xam naa ne nag kooku mooy doon nekka suma mujjanteeli koola di wax ne rek ne li ñu dese woon ci waxtu jeex na takk ba nga xam ne ni fi mu nekk nag li ci des rek mooy ñu tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo doon seetaan programme bi bakku bi na saay nekk dañuy bëgg a toog di waxtaan ak yéen di leen indi taw ngay neexi waaye tamit am na yeneen programmes yoo xam ne ñu ngi ci gannaaw te yooyu tamit dañ war a ñëw waaye lu ci mun ti nekk rek sotti ceeg def ci la te xam naa ne bu neexee rek yéen ñëpp a ko moom waaye nag tey ndigéem Seeku Seeku Boy mooy jàppoon nag ci camera bi ma di ko ñaanal Seeku loxo bi gën a barke rek ba incha allah xam naa ne lim ci bëgg a mu am ko nekkoon ci am um, um, studio bi fàttewuma si kenn koo xam ne ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ca master control room bi di leen bëggee bu baax a baax a baax waaye nag ni ma dee faral di def rek balaa maa tëj programme bi foog rek ma ñaan suma maam ko nga xam ne mooy imaam ratib ma di ko ñaanal bu baax ne ko maam booy yow soo ñu ñaanalee dafa am fàttewuma si suma maam di ajaratu daado siseka ñu di ñu ñaanale te incha lu ñu ñaanale dafa am waaye nag saa yu nekk dinaa bëggee nga xam ne ni eh, mooy suma yaay di ajaratu yaasee njaay yaa booy saa yu nekk rek di la wax ne xel mi xalaat maa ngi ci yow te incha allah dinaa ñëw seet si la nag fàttewuma si oncle Serigne di ko wax ne ko nag li ma digoon dinaa ko na ma ne bakku bi na nuñ ko um, spale in in in in um, si um, dañ ko jël rek spelé a euh, in another way waaye oncle Serigne su soobee yàlla am euh, papa Serigne dinañ def loolu waaye nag ba tey rek saa yu nekk rek di bëggee Hadi Sila Ndiaye ak njabootam saa yu nekk dañ leen di ñaanal a bi di leen wax ne rek di jaaraat si ñaw bi ndax kooku wax naa leen ne mooy ñaw ba rafet oo ma ba ñëw ne ma tey fii laa la génne dama nga sol ko ci programme bi kooku nga xam ne mooy Salimi Kujaa bi foofu noonu sa Sawiri Ngara moom moo xale mi yëpp di leen ñaanal sali kontaan naa lool si abaya bi waaye tamit di bëggee waa Sambène Coiffure ko nga xam ne mooy sa xale bi nekk foofu noonu ca Fajara Atlantic Road waaye nag tamit di leen dig daje incha allah bu ñu ko yàlla mayee fekkee talaata bii di ñëw yeneen façon ñu tooga laa nekka ci programme yi bakku bi waaye fii ci GRTS ak seen xarit Maam Jeng ci ngeen jëf Música The show on demand which you've been waiting for is finally here. Inside is a show designed by Panaflix Media in partnership with GRTS to address the many questions you, the viewers and potential investors, have been asking. The show will look at the evolution of technology over the years and how it affects the way we live. We'll review and find out the processes of locally made products every week and we'll be in the market for you every week to find out what's trending now, useful market prices, currency market updates, and more. We'll also interview successful entrepreneurs entrepreneur every week whose story would be a trigger to you, the youth who haven't chosen a career path to act now. But that's not all. There's Cambia Shopper for your weekly shopping advice. Call for help to address any of your tech-related problems. Tech News bringing you the updates of the latest technology news. The Natural Solution, which unveils the secret behind natural juice in human health and much more. Interestingly, the show is everywhere you go. You can watch it on TV, on your mobile, tablet, or even on your computer in high definition.